information judiciaire yi ñuy xaar ak enquête parlementaire bi fan lay mujj sorul bu ma la ko jàngal yow itam très bien Saliou Zadiat alors euh, euh, euh, wax na sànq bu ñu fàttalikoo Aïda Mbodj ci malheureusement mujjul fenn et d'autres même questions écrites sur la gestion ci fonds force Covid-19 yow mi génnee nga fi saaku ceeb li mu la jural moom mooy ñu woola ci division des investigations criminelles ngir midi leer ci wàllu mbas mi est-ce que du yooyu doon feeñ génnee ci li nga xam ne moom moo yorin bu baaxul bi ci wàllu Covid 19 bi fonds yi. Covid bi faatu am mille milliards waxuma cent millions cent milliards c'est mille milliards xaymaal bi ñuy commencé takk maski yi ñaata mois mu jeex fii Sénégal sorewul ci mille milliards pour man rapport bi sax dafa des xaalis bi dëgg dëgg dëgg fi mu dugg dëgg dëgg duggul ci rapport bi ci yeneen anam la ñuy def il y a plusieurs façons de procéder à des virements sans passer même par les ministères et tant d'autres am na lu des mille milliards di loolu kese mais dafa am lu ñu utiliser gis nga lii sëriñ wax nii yooyu mooy yu nga yu nganda yi yu ndaw yi lañ jël rocc si di wax ne yi ay ay détournement la fekk du loolu ay vice de forme la ce ne sont pas des dama la war a jox virement ma jox la espèce ñu ne la waroo def à partir de telle période waroo joxe espèce da nga def virement nga ne d' accord na mais ña koy def xam nañ ko. waaw xaaral rek non non non mais dañu nekk c'est-à-dire. xam nañ yoonu administration. waaw waaw xaar rek xaaral ma la. Hmm? xaar xaaral ma la xam nga dafa am yoo xamante ni si période Covid. Hmm? comme période de résilience la. période de guerre la. période de hmm. guerre quand on achète des armes dafa am loo ci ni duñ fa jaar. dañ koy def directement mais dama lay wax yeneen ñi nga xamante ne xam nañ ko. Mm. mu doon waaw. mais même même si c'est urgence. ça ne justifie pas des espèces. non non non non eh, xam nga. Ah, ah, Amadou vous le laissez terminer oui xam nga xam nga mm-hmm. Amadou. Mm-hmm. gis nga caisse noire u état. c'est pas seulement pour aider des gens. il y des situations de guerre mën na am ñu rocc si caisse si caisse gi génne. ay calamité. je parle le cadre du DAGE du ministère du sport. kenn waxul ne da nga détourné. Amadou Ngom. Ngom waaw xam nga waxuñu ko ne da nga détourné. dañ ne ko lii waroo ko def mais terewul xaalis bi egg na si ñi ñu waroon egg donte indi na justificatif bi mais dañ ne ko lii bu ko defati mu jégalu. la commune une faute de gestion. waaw waaw la commune une de gestion xam nga a répondu. et il a demandé aussi. waaw il a demandé. et c'est la grandeur. Léon Sall c'est ce qu'il a fait aussi. même Moustapha Diop mais milliards yi. ñaar ñoo ko lekk. Hmm? Hmm. ñaari ministère la mooy santé bi ak ceeb bi la man rapportu ceeb bi man lu tax génnul diwlin bi ak suukar si jaaxal na ma. ce qu'on a reproché xam nga xam nga parfois di nga jël rapport régler des problèmes politiques à travers ce rapport di nga am koo mel nga ne eh Léon Sall mi wala daam Diop mi wala Ngom Ngom ñaam mi. vous voulez dire mais dafa nànk dafa am sax dafa nànk dafa am dañuy rocc li la intéressé. roof ko ci journaux yi fekk am na lu gën a important fekk ñooñu defuñu dara bis bu cour des comptes demee ne leen génne leen ma milliards ñu xool am na yomante nii ne dañ ko contourner autrement ci xaalis rab te cour des comptes mënu ko gis xaymaal la wax ci ci ci ci ci détournement ak par rapport ak li ñuy génn ci xaalis waaye c'est minime c'est rien du tout. Ce qui a été fait au niveau du ministère de la Santé, ce qui a été fait sur le riz et le sucre ceeb boo xamante ni ñëpp gis ngeen ceeb bi ceeb bi ma yóbbu dama koy yanu yóbbu ko ba dig teg ne waa ji dugal ko ci ndox xam nga moo ci génn ay gunóor <laughs> ñoo ci génn ay gunóor mu koy gis nii mais li ñu def li ñuy facturer ak par rapport ce qui a été fait mais c'est ak yi nga xamante ni ne dañ naan Covid bi la ñu viré ko à d'autres entreprises ou à d'autres hommes d'affaires ki n'ont rien à voir avec le marché mais yooyu Cour des comptes gisu ko. pourtant si. Ah? am na de waaw mais xaw ah, mais mais gis nga seen am na yamante gis nga yow yi wax nii xam nga seulement c'est mais am na yamante ni dañ ne Covid la làq ko. waaw moom la waaw. waaw kay làq hmm? te yooyu dina génn te am nañ ci. yu bari sax c'est des milliards. des dépenses mais Fatou Abdou yow ñi ñuy yow ñi ñuy wax nii defuñu dara xoola gis nga ñi ñuy tudd nii ils n'ont rien fait c'est rien du tout yu ndaw la ñu téye diñu ko jox dañuy saxal ay tàngal naan ñu li fekk ñu defuñu dara vice de forme lañu def exactement di nga xam ne y problème et le rôle que la presse devait normalement jouer normalement sur ce rapport pour sortir véritablement les véritables problèmes waxuñu ko parce que yenn saa ay tamit gars yi dañuy def ay copinage. y' a un collectif ñoo ngi si de. waaw waaw mais y' a collectif certes yaa ngi dégg mais dafa yoon dafa am copinage Fat Abdou da gis ay virements yoo xamante si ay nit. 4 milliards qui n'ont rien à voir avec ces ministères là comme si ces ministères ak loolu ministère n'ont rien n'ont dañ naan si tel ministère la fekk ministère boobu yow ko sax c' est pour autre chose mooy détournement d' dina am moo tax yéen député yi lii rek lañ leen soxla nag gis nga gis nga fu mu nekk nii buñ leen joxee quatre-vingts députés yéen opposition lii rek ku leen saaga bu leen ko tontu bu leen tontu saaga ku leen mbéj ne leen ak ah, d'accord mais on a on va venir ce qui nous intéresse c'est l'argent du peuple sénégalais. fole nañ ko dugal ak fole nañ ko def. honorable député yow lii rapport bi da ngay noppi dégg day dégg. doo leen wax bu ñu saag. waaw de waaye non non defar loolu laa lay wax. da nga ne bu leen saag wax wax ko ñoom bu ñu saag. bul saag. na leer jigéen bu la wax bul dóor. loolu du seen rôle ñeen ñi bu leen bu ñu leen xase amul solo mooy xamal leen ne vous êtes là pour le peuple vous êtes là pour évaluer les politiques publiques. alors l'action du gouvernement. comme leer na Oumar Faye. bu leen mukk tontontu si yooyu parce que. mën na sax yéen seen bopp yéen seen bopp. mën na yàq sax seen crédibilité. très bien Oumar euh, euh, ci ci ci loolu euh, très rapidement. 30 secondes non no non je voulais euh, juste euh, c'est c'est une petite précision mm. parce que xam nga bu fekkee ne Cour de comptes. Mm. comme ni mu ko waxee ah je suis logique. am na yoo xam ne gisu ko. Mm-hmm. mais en parlementaire mënu ko gis. dañoo xamante dëgg. et foofu la ñuy xaar enquête parlementaire am na ay limites. Mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga wax ji. donc lu mënul gis lu lu cour des comptes mënut gis je crois pas que enquête parlementaire mënul ko gis maintenant. damay dellu si ci li ma waxoon damay. Mm, mm. man dama bëgg ñu remonter chaîne de responsabilité xam nga ne da nga leen dañu saxal de tàngal. Ah. ñi nga xam ne ñooy les vrais responsables les vrais coupables xëy na sax tudduñu leen. Ah. waaw léegi nag bon peut-être tudd nañ leen si rapport bi mais la ñu jot a génne ci presse bi gis nga ne xëy na yu tuuti tuuti mais mais mais mais voilà justement gis nga nag fii nag fii la génnee rapport am solo xam nga rapport bi lan la. c'est pas un rapport secret c'est tombé dans le domaine public c'est pas un rapport secret ku ko génnee en tant que journaliste kenn du la topp donc il faut faire très attention donc nag fii nag moom ku mu neex nga ne ko bëcc ci taabal ji ñu xam ku def ak ku deful faut pas qu'on ah diw diw wut ay tour quelque def benn article daan ne diw ciblé ay nit. non nañu tudd ñi nga xam ne ñooy ponkal yi mooy ministre yi ministre yooyu. nga xam ne ñoom ñoo chapeauté woon. ce que ce que euh, a dit c'est extrêmement important. parce que daf ci am daf non. Omar Faye li mu wax lu mu wax. non Omar Sall li mu wax mooy le copinage qu'il y a entre certains ñi nga xamante ne ils ont commis des des de gestion ak yenn journalistes parce que ce qui est grave moi j'ai vu j'ai vu aujourd'hui des gens pas le, bouchon à ce non c'est pas des accusations mais ma ñëw mais moom ma ñëw xamul tax parce que quand par exemple la Cour des comptes demande à ce qu'on ouvre une information judiciaire contre un DAGE et que je vois que y a des da nga indi xam-xam nga indi des preuves contraires à ce que la cour des comptes a dit ma mën wax mais on dit qu'on ouvre une information judiciaire contre quelqu'un et aujourd'hui il y a des journalistes qui savent qui c'est-à-dire qui à dire que en réalité ça ils n'ont rien fait sëñ Saliou ah, ça va d'accord léegi xam nga foofu lu ñu fa mën a wax mooy lenn mooy ku ci nekk na nga dem ak sa responsabilité quand un journaliste prend la responsabilité mu taxaw ne diw deful dara parce que xëy na xaritam la ne da koy defendre mais libre à lui li nekk ci rapport bi li nekk ci rapport du journaliste moo koy dindi. léegi bu amee am na journal nag lu ma rek. bu amee parce que li may bañ mooy stigmatisation. bu fekkee ne am na journaliste yoo xam ne ñoom. dañuy laq doom di dóor doom c'est-à-dire que bu ñu nee diw la ñu bàyyi mu jàll bu ñu nee du diw ñu daal di ñu daal di koy nëbb bu dee loolu am na li ñu war a def mooy am na ñeneen ñoo xam ne ils sont de bonne foi nañ génnee lépp waaw mais amul. nañu génne lépp teg dañuy dañuy dañuy def dañuy def. parce que journaliste non defal ndànk encore une fois dañuy jox journaliste benn rôle boo xam ne amu ko. journaliste amu ko di wax ne. kii dama koy deful dara wala kee deful dara no c'est pas son rôle. on a on doit ouvrir une information judiciaire. Amadou Diouf foofu la ñuy xamee. yow mu ñu tuumaal est-ce que exactement parce que nag dafa naa mooy expliquer la xam nga dañuy juum ci rapport euh, rapport yi. Hmm. xam nga rapport bu la épinglé mais tu n'es pas condamné. tu n'es pas condamné il faut faire la différence vous êtes épinglé c'est vrai que Sénégal moom dinañ jënd ay épingle yu bari di épinglé parce que li ñuy épinglé bari na waaye mais épinglé ne veut pas dire être condamné dañ la épinglé pour telle ou telle ou faute bu ñu demee nag ba nga xam ne ubbi nañ information judiciaire day am contradiction da ngay indi nga teg ci taabal ji yow lan mooy sa tontu ci loolu loolu nga indi ca la ñu xool information judiciaire boobu bu ubbeekoo ñu xool est exactement li ñu tuumaaloon Fatou Abdou est-ce que Fatou Abdou moo ko def. mën non mën nañ laa épingler ci rapport après ñu blanchir la. non dafa ma expliquer la mën nañ laa épingler ci ah, rapport après ñu blanchir donc rapport du jugement. rapport du jugement. il faut qu'on fasse la différence maintenant nag dama bëgg man. encore une fois ñu remonter chaîne de responsabilité bañ a yem ci ay daaj ak yéen ba ca ministre ya nga xam ne ñoo yoroon yëf ya dégg nañu ko dégg nañu ko 30 secondes Oumar oui mm-hmm. Mm-hmm. ñuy tudd actuellement c'est li tudd nii ci rapport bi ñi ñuy tudd nii di ko mettre moo tax ñu war ñeneen ça ñoo ñuy tudd noonu xoolal <laughs> waaw faute de procédure la ñeen tuddee nañ tudd ñeneen jox nañ la xaalis war nga ko jox Serigne Saliou allez nga viré ko nga jël ko jox ko directement amoo ci yoon. jox ko en espèce. loolu la mais ne dañu def ay dañuy def ay ay njuuma yu grave ñu bàyyi ko. dañu oh, dem rapidement ah, ah, ah, alors dañu dem ci beneen point bi Amadou merci dañu dem ci beneen point bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee muy motion de censure